ak yelleefu askan wi ñoo ngi wëy di ko salfaañee boobee ba léegi liile moo nekk constat bi nga xam ni liile moo nekk constat bi nga xam ni mbootaay gi xeex àq ak yelleefu bépp consommateur dal di am tax ñu dakkal seen ak noppi tey àddu ci mbir mi ndax kat kuréel gi dafa jóg ngir rekk joxaat askan wi seen àq ak seen yelleef. kuréel bi ëmb ñi nar a xeex ak ak yelleefu ñoo ñi di ay jëndkat ci Sénégal moo rek juddu ci ab lëkkaloo bu sor yi bi nga xam ne rek képp kuy doomu réew mi am nga ci sa ak ak yelleef ndaxte rek seetlu bi mooy ñenn ñi jox ñu seen ak ak yelleef ñoo ñi di ay consommateur di jëndkat yu nekk ci Sénégal loole rek tax sañu mbébét rek mooy ñuy wëyal seeni i kàddu def suñu kéemtulaay kàttan ba seen bëgg ak seen ay mbëbët ñu mën ko respecté. ñu am commission sensibiliser askan wi ci seen àq ak seen yelleef ci la CDCS di xamle jafe-jafe yi nga xam ni askan wi moom lay dund. sénégalais yu bari dañuy ñëw di ñaxtu par rapport ak li ñuy daj ci hôpitaux yi par rapport ak li ñuy daj ci courant bi par rapport ak li ñuy daj ci ndox walla ci. Euh, denrée alimentaire ci marché bi wala prix carburant wala leneen. yi la jafe-jafe nga xam ni day am ay njeexital ci askan wi. tax ba mbootaay gi ne mënatul noppi benn yoon waral ñu soobu ci xeex ngir rek trouver ay solution ngir saafara mbir mi. et nous à œuvrer. ñun nag euh, dañoo ànd rek nar a lëkkaloo ngir rek indi ay saafara ci yenn jafe-jafe yu ñuy jànkontee la la ñu nar a def nag mooy njëkk a gisee njiit yi nekk ci entreprise yi ak société civile yi ngir mën a yokk suñu xam wëyala ci bile secteur. ñu dajaloo ngir rekk xeex ak ak yelleef waaye tamit askan boo xam ne ñëpp a yam lii le moo nekk bëgg-bëgg bi le collectif ci loole ñoo ngi woote askan wi yëpp ñëw daldi ci bokk ngir ñoo ngi wéyal xeex bi ba ñëpp jotaat seen àq ak seen yelleef